jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuy nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne di profitoo rek ci julli gi ñu jugee di baalu àq mbooloom yëpp képp koo xamante ne yaa ngi safoo wasaare làmb ñu ngi lay baalu àq di la baal àq di ñaan yàlla suñu borom bi nga xamante ni moo am njéggal yàlla suñu borom boole ñu jéggal di ñaanal ñëpp jàmm moo xam ni feebar tëdd ci hôpitaux yi ñu ngi ñaan yàlla na suñu borom fëggaat seen bopp ba ñu delluwaat ci seeni activité ñu feebar tëdd ci kër yi noonu lañ leen koy ñaanale ñoom it yàlla suñu borom fëggaat seen bopp ba ñu dellu ci activités yi ñi nga xamante ne caabi da leen a féeti ginnaaw yàlla na leen fa yàlla jëlee te bu ñu fa jógee yàlla bu ñu fa dellu di jaale tamit ñi nga xamante ni duñu génn àdduna ci diggante bi di ñaan yàlla suñu borom yërëm leen te xare leen àjjana ci àjjana yi fi firdawsi ak mboolu mi jullit mbokk yi tey ñu ngi dalal ki nga xamante ni mooy Alé nag bu ñu ko waxee sa xel day dem ci rent DKR production mu créer bis bu mag affice bi nga xamante ni moom la Sénégal gépp doon xaar gannaaw jaam bi ak pexeem yàlla ak dogalam ñu ñëw ba ca bis ba ñu jékki-jékki yëg ni amuñu service d'ordre yu mën a couvrir événement bi ba waral looloo tax événement bi amul gannaaw loolu dañu koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet bi su ko defee ñu wel waxtaan bi Alain maa lay nuyu ah, baax di la siyaar. maa ngi lay fay. Mm. di nuyu mbokk internet yëpp. di di la sant gërëm la police teewaay bi. Mm. di nuyu ñi may liggéeyal Jumbo ak Pape Sarr tamit. Mm. waaw. ale ginnaaw loolu euh, bëgg nañu xam lan moo la dugal ci làmb ba nga investir ci. làmb bëgg-bëgg la rek. bëgg-bëgg la rek parce que boobu noonu mu ngi départ ci waxtaan nii rek ak sama xarit Jumbo. après xam nga ñun moom làmb moom këru séréer moom làmb moom hmm. foofu la foofu la foofu dafa nekk lu naturel foofu la fekk baax xam nga ñun moom dafa am loo xam dañ ko tàmm hmm. ñun moom yàlla dafa def suñu génération bi nekk xale dañ fi fekk màgg ñu hmm. nijaay ci man neex a supporter la laa koy wooyee ndax bu defee di nga bi lundi bi da ngay bég booy jàngi après moom ñoom Yékini mm-hmm. xam nga loolu yëpp day tax nga nga am amuru làmb quoi. Mm-hmm. waaw looloo tax rek. gannaaw ngay dem bitim réew. sa enfance fan nga ko defee ak lan moo la bitim réew ba nga fi demee ci lan nga doon yëngu. non man maa ngi ville laa juddoo Félix Eboy. Mm-hmm. après ma dëkki point. ñëw point am na ay cinq six ans. fa laa juddoo nag màggee fa. ba xàmmee daal. Mhm. après nag ci fin bi juste balaa may tukki. Mhm. Euh, sama papa décidé ñu toxu Mariste. Mhm. man moom sama référence point la quoi. foofu damay ne suñu waxee sax damay ne fa laa juddoo fa laa foofu laa xam. fa la samay xarit nekk. samay am di jàmm yëpp fa nekk. ñu màggandoo xam nga ba léegi nii muy muy nice quoi. waaw. noonu la demee. Alain gannaaw loolu nga dem bitim réew. Mm-hmm. ñoo investir làmb gis nga keroog par rapport li xew. Mm-hmm. ci làmb ji. Mm-hmm. nga ñëw investir sa xaalis. mbër yi jox nga leen li ñu war a def yëpp. ñu ñëw ba ci dernier moment rek ñu yëg ni làmb ji amul yow ci ban moment nga ko yëg ak noo ko yëgee. non man déjà samedi soir bi samedi soir bi commencé naa am ay doute. parce que bi ñuy waxtaan ak commandant Thioune comme moo ñu doon wutal sécurité bi. benn instant nee nañu ah gars yi compliqué na. Mhm. compliqué na bi ñu ne compliqué na nag euh, mais ñun ñuy woon toujours di wax ak moom mais ba léegi amul sécurité. Mhm. après sama xarit bi jumbo woo président CNG. président CNG ne ko euh, am nañu problème mu sécurité. Mhm. mais ñu ngi xool. moom président moo xool waaw. après nag toog naa ba benn instant sama nijaay woo ma manga mhm. mu woo ma ne ma dafa am problème mu sécurité wala yooyu ma ne ko waaw mu ne ma ok ñu koy gërëm nag te bu baax parce que gis nga àdduna moom àdduna dafa doy waar mhm. bi yëpp di xew balaa muy xew sax xam nga moom daf ma daf ma doon conseil may conseiller parce que man papa la ci man mhm. mu ne ma nit fooy dem rek ànd seeg dal mm-hmm. buñ la dugal ci yenn yi mm-hmm. xam nga waneel ni nga mel mais pas am na yoo xam ne bul ci dugg mm-hmm. loo tax gis nga bii gars yi génne arène nationale ñëpp di yuuxu di kaas ñi di wax lu ne ñeneen ñi ñu ngi ñëw ndeysaan di mel ne yaa ngi seddal xaw ma la nekk lan boobu fekk du question sax seddal nit boo nekkee ci dara da nga ci am kilifa. Mm-hmm. dafa am solo te man yàlla def na am naa si kilifa. mi mm-hmm. moom père Manga. Mm-hmm. ma dalal bul dugg ci yenn polémique yi te tey tey tey bu ma xoolee li ma ko déglu. kontaan naa ci parce que ñu bëri dañ may woo léegi di ne non yow ñëpp ngi mer di wax lu nekk yow lañu gis nga dal ci xuloo woo ci. duñ dox nga ne sant yàlla. loo hmm. tax yenn saa yi déglu waxu kilifa dafa am solo. Hmm. ni ma ko waxee moom pourtant nag naa la wax benn affaire bu bëri de. xam naa hmm. nag daf ma jàppee doomam laa. mu di demee. kii bi yëpp bi muy xew. bugguma woon sax démb ñu ngi la. yenn saa la lu yëpp li muy xew mu ngi ñuy woo di ñu conseil ne daal aduna nii la daal. xam man li ma wax jëfee naa ko tooñu ma fi kenn jéem fi wax wax joo xam ne rafetul parce que comme ni mu wax rek gis nga tey moom am na loo xam ne boo ci duggee hmm. euh, am na nooy taxawee rek nit ñi am fuñ la dëkkale la léegi dangay ñëw am na foo xam ne tam boo ci bokkee danga nga war a wane bon exemple hmm. am na yoo xam ne waroo ci dugg. Mm-hmm. wax ci bi mu bëree nit ñëw na wax lii wax lee wax lee da nga war a tàngal da nga war a yuuxu na na ni man la non duma def loolu. Mm-hmm. loolu mooy àdduna. léegi ginnaaw bi nga déggante ak Père Manga. ci mm-hmm. ban moment nga xam ne làmb ji moom mënatu am ci ban moment la. <coughs> bi ma wooyee rek moom. ne ma apparemment dafa am ay problème mu sécurité. laa xam ne làmb ji du am. xam nga àdduna boo ko comprendre hmm. yenn yi du la sonal am na genre kilifa yoo xam ne seen wax bëriwul mais buñ la wooyee rek poser la benn question nii rek da ngay xam ne am na lu ci kii débat wu ci nag de ndax hmm. ma wax nii ah apparemment am na problème kii mais tranquille yàlla baax na hmm. mais foofu rek euh, jëfu kilifa la quoi du du wax wax ju bëri da lay wax ñaari phrase léegi nag yow foog nga am dégg-dégg quoi man instant boobu laa xam ne affaire yi na compliqué. Hmm. mais nag moom xam nga ñun moom man moom par exemple gërëm ko rek lay mën chaque jours hmm. parce que mu nekk nijaay nekk idole dolli ci. Hmm. xam nga suñu bëggee làmb moom moo tax suñu seeti ko. conseil rek la jox conseil yu mu joxee doomam. dëgg la moo tax euh, gisoo démb bi ñuy waxtaan ak Pape Sarr moo ne ko fekk ñuy wax waxu père Gaston. Mm-hmm. ma ne ko Paco tooñ nga père Gaston quoi. Mm-hmm. xam nga <laughs> mu ne ma moo tax euh, looy def rek am si kilifa dafa am solo quoi. Mm-hmm. parce que moom ni muy comporté wook yow ngay comporté wook nit boo amee kilifa bu tegu ci yoon. mu ne la dalal bu fi bëri wax bul fi def lii xam nga. douze mois. Hmm. yow loolu ngay appliqué. Hmm. mais boo amee kilifa boo xam da lay ne xëpp ci kaan yi tëbal waxal lii ak rek. Hmm. yow loolu ngay def tamit appliqué après ñu ne dëkkul foo foo nekkul. effectivement man kenn gisuma ba léegi ma wax ci wax joo xam ne xam na wax joo xam ne euh, ñaaw na wala lii ak lii su ma waxee damay ne ah nii la waroon demee rek. après nag gis nga ci lii xew. damay wax benn wax nit ñi dañuy jaxase lu bari. Mhm. comprendre nit ñi dañuy jaxase lu bari. amul problème ak CNG dama bëgg loolu mu leer. amoo problème ak CNG. CNG moo amul pro du problème bi du CNG nit ñi ñu ngi wax fii wax fële problème bi du CNG nit ñi dañu waru a comprendre explication bi ñu jot nañu ñun ñoo woo Bira Jumbo communiqué na ak moom mi le fait que kii moo woo Bira Sène moo ñu woo loolu amul importance. Mhm. problème bi mooy ñun ak Bira mhm. ñoo bokk métit. du ay affaire de neexal arrangé wala yooyu nit ñi nañu wax lii di dëgg. Mhm. ñun ak Bira ñoo bokk métit. métit bi mooy lan ñun def nañu li yëpp ñu war ci CNG. police. CNG joxewul police. Mm-hmm. foog loolu mu leer ci bopp nit yi mm-hmm. CNG joxewul police mm-hmm. léegi nag comme CNG joxewul police police ñun du ñu defee li ñu war a def euh, ak waa CNG dañuy jaar ci commandant Thioune pour mu utal ñu police mooy maanaam am police bi Bira Sène mënu ci dara déedéet léegi waa monde làmb bi bu ñu tooñ père Bira am na malentendu nag Mm-hmm. ay woo booy yi booy yi ñoo ma woo ñun ñoo ko woo loolu garaawul mm-hmm. suñu papa la mm-hmm. mais euh, ay teel nañ ñu avertir loolu yëpp amul importance ñun xam nañu ñoom xam nañu loolu yëpp amul importance lii am importance mooy problème bi du CNG problème bi ñii di joxe police la mooy maanaam soit gouverneur soit préfet soit ministre de l'intérieur bu ñu jël débat bi jaxase ko feneen ñoo commencé di naan waa CNG lii waa CNG lële ça n'a rien à voir. Mm-hmm. dañuy laaj week bi nana nii ñëpp xam nañ ne Père Ndiambé dafa feebar. Mm-hmm. nit ñi nag tamit am loo xam ne xel moo koy mottali Père Ndiambé dafa feebar Père Bira Sène fi nekkoon ak commandant Thioune. Mm-hmm. commandant Thioune li ko war yëpp def na ko. Thioune Thioune woor nañu. vingt cinq fois. ñu ngi wootante ba hmm. guddi ba guddi. Hmm. ñu ngi wax ak moom téléphone. permanga pareil conseil yi ñu joxoon moom lañu jox man mi muy papa ci man ma appliqué ko. waaye hmm. woo na ñu woowaat ñu woowaati xam nga li ma la ça dire quoi ça dire que. Euh, moom mënoon na ci bañ sax dugg parce que moom lu traditionnel lay toppatoo. Mhm. mënoon na ci bañ a sax dugg. Mhm. démb bëgguma woon sax tudd turam pour bañ xam nga nit ñi dafay amal gaam yu amul. Mhm, mais kooku ñun amuñu fayam ci lépp nag. léegi nag euh, nit ñi buñ fi taxaw ne seen la CNG du ci dara. du fotu CNG. mais actuellement ci làmb. Mhm. yaakaar naa état buy jël benn. Euh, décision benn décision. Mhm. dina ci déggoog CNG de lutte bi. te làmb bu ñu ko wax te sans CNG. lu tax état bi di si déggoog CNG de lutte. parce que moom moo yor kuréelu làmb ji. léegi yow boo amee booy booy jël benn décision nga nekk sa biir kër da ngay déggoog sa doom bu góor dañu waxante dëgg rek. da ngay yaa nekk sa biir kër da ngay jël sa décision sa domb bu góor yoonam nekku ci. dëgg la mais fooguma ne bi bi laa seen moom ñu ne yëgandoo ne policier amul jour boobu. yow loolu nga jàpp man loolu laa jàpp. parce que bi ñu terewee làmb yi hors de Dakar. Mhm. boobu man laajte naa ñu ne ma hors dakaar Dakar la gum. dal-dal mhm. euh, bi ci dakaar mhm. ci ñu la tàmbalee. ñun ak ñi doon tëgg Ibama ci ñooñu la commencé nit ñi bu ñu jaxasee affaire yi perturbation yooyu amul njëriñ. mais kon yow est-ce que da ngay confirmer li ñu ne. Euh... actuellement état bi fi nekk buggul làmb parce que moment bi nga xamante ne ñu ngi arrêté activité làmb yi ci moment boobu Djiby Dramé def na benn euh, programme gis ngeen mm-hmm. bi nga xamante ne def na ko mm-hmm. yëngu-yëngu yu bari am na ci ci ci jour boobu te état waxuñu ci dara lan moo tax ñu xëy rek affaire bi daanu ci kaw làmb yow loolu gis-gis bi noo ko mën a gisee man sama gis-gis bi may am mooy lan mm-hmm. mënuñu taxaw ne état buggul làmb ndax état li mu englobé ci nit bëri na xëy na am na ñu ci bëggul làmb loolu la mënoo ñëw ne sénégalais yëpp bëgguñu làmb loolu mënul nekk te état c'est la day représenter sénégalais yëpp tey état bi ñaata nit a ci nekk bëri na. bëri na am na ci ñu ci bëggul làmb forcément mais du ñëpp. am na ñu ci hmm. seetaan làmb ñoo xam ne xam naa leen ci. si ko seetaan bu baax mënuñu ne état bi yëpp bëggul làmb hmm. tey problème bi mooy tere nañu làmb am kan moo tere làmbal am te décret amul foofu la problème bi nekk foofu la ñu war a seeti. loolu moo yëg yëpp nag léegi kan moo bind kan moo signé voilà léegi beneen problème bi mooy lan. Mhm. lu tax ñeneen ñi di organiser ay soirée ay conférence ak yooyu yëpp. Mhm. terewuñu leen ñu tere waa làmb xam nga luy problème mu waa làmb mhm. dañu dispersé wu. kii day wax lii kële wax lale kële waxaat le dëgg la nañuy toog di réfléchir balaa ñuy wax. xam li ñuy wax ciblé ki ñu tooñ ñu jubal ci ki ñu tooñ. ci loolu laay ñëw sax mm. ginnaaw loolu bi événement bi yàqoo est-ce que say nawle promoteur jël nañ seen téléphone woo la masawu la wala wax lañ ci seen xalaat. waaw am na am na ñu ma ci woo am na ñun comme ñun ñett lañu moom. Mm. ñii dinañu woo kii kële woo kële kii woo kële. ñii woo Pape Sarr ñii woo Jumbo ñii woo Ale ñii woo man ñi ma si amal affinité woo nañ ma. ñi ma si amal affinité ñoo am ñoo mbër yi sax. Mm-hmm. mbër yi bëri. ñu ñu tëgg ak ñu ñu tëggul woo dañ la masawu wa ñoom euh, Pathé la mm-hmm. président école lutte Mor Fadam mm-hmm. xam nga yi ñoom ñëpp euh, ñoom jamaïcain mm-hmm. Assane Ndiaye ñi ngi si seqal jàmm prince xam nga ñi ngi si seqal jàmm moom wax dëgg masawu nañ la te noonu la àdduna la rek am nañu woo jubbu am nañu woo Pape Sarr noonu la mais comme ñu wax rek waa lamb bi nañu nañu Hmm. bokkandoo fi ñu tiirandoo loolu mooy pro mooy kii bi quoi. Hmm. mais bu ñu dispersé wu. gis nga fi ñoo xam ne dem nañu songi Père Gaston. sama copain hmm. sax ci la bokk. <laughs> Père Gaston lan la ci. veille bi ci ñu doon yëngal dëkk bi di woo gouverneur di woo ñëpp ñu tëgg la ñu bokkoon. mooy ñun suñ ko remercié wul waruñu dal kawam quoi. te du ma mës a toog àdduna du mës tukki ba ma toog di clash Père Gaston. xam nga. parce que ñun Sénégal dañu tàmm après rek rëccu ne woy hmm. bu ñu xamoon bi mu fiy nekk na na nii nana naa moom dañ làmb dañ ko war a delloo njukkal est-ce que bi bi ñu naan uh, sa làmb ji du am làmb hmm. làmb rent DKR production bi du hmm. am euh, te làmb Gaston bi le 31 juillet Balla Gaye Bombardier ñëpp jàpp nañ ni làmb jooju dina am te nee nañ bu amee maam ñoom dinañ jël seen mesure bopp ba làmb jooju dootul am arène nationale fii ak yow tëggoo boo déggee loolu nan la lay def. man d'accord ma ci loolu nañu fexe nu père Gaston ak Pape Abdou Fall di tëggee loolu mooy importance bi bu ñu xool ñun li ñu dal parce que dal nañu ñu ne bon affaire de kumba am ndey la ak kumba amul ndey ba ñële duñu tëgg ñu bàyyi ñële ñu tëgg loolu mooy avancement bi léegi ñoom ñun li ñu dal. Mm-hmm. ñoom xam nañu li leen war par rapport ak ñun nañ ko def. mais nañu bàyyi ñeneen ñi ñu tëgg. tey Pape Abdou Fall bu tëggul lan lay def presque trois ans yi soreetul. bu mhm. teg xaalisam fenn mënu si jot. Mhm. waxante dëgg. metti na Gaston li mu dugal ci xaalis communication bi mu def. Mhm. xam nga ñun ñàkk nañ suñu communication bu ñu defoon parce que bu ñu amaatee dara dinañ defaat communication. ñaanaluma ko ko pour mu ñàkk ko. ñun waruñ ko fayee noonu quoi père boobu ak luñ ko xam nga nit moom àdduna moom du ñëpp lay bëgg. dëgg la. waaye lan la ñuy wax. ku ñëpp tëf nga tooy. non non <laughs> la ñuy wax. lëg lekkee alam da ko gërëmee cooy. déedéet lëg gudd na nopp xam waaye kenn mënu ko tereel nangul mën a daw. a bu wax mu mel noonu maanaam gudd na loolu. Ah. waaye paa bi luñ ko munti waxal. ko nangul ne ndaanaan la mm-hmm. mu tëgg. nañu bàyyi gars yi ñu tëgg seen combat yi loolu moo am solo parce que loolu mooy avancement wu làmb avancement wu làmb du ñu nee dafa am kumba am ndey kumba am ndey waa ren DKR tere leen tëgg rek ñeneen ñi duñu tëgg nañu bàyyi ñi ñu tëgg loolu mooy avancement wu làmb. léegi ginnaaw loolu. Hmm. yow mi nga xamante ne yow yaay yow yaay bailleur bi yaa jël sa xaalis dugal ko ci làmb mbër yi déggante ak ñoom. mbër yi engagé voilà damay dellu affaire précision boobu bëgg naa ko def tamit bi nga wax waxu bailleur bi. Hmm. bailleur bi tout le temps nit ñi ñu ngi toog naan Alain mooy mooy bailleur bi. Hmm. Euh, su ma dugalee un franc. Hmm. Jumbo dugal na un franc. Hmm. Pape dugal na un franc. xam nga li ma la. ñun ñëpp benn lañu. même chose la. ren dekkaayat ñett nit la. trois personnes la amul ki mooy bailleur bi ki mooy kii li ñu dugal ñun ñëpp ko dugal. mais buñ toogee ak Pape Sarr comme nii tamit noonu lañ ko ko waxee comme yow yaay bailleur bi yaa dugal. <laughs> noonu lañ ko waxee Pape Sarr da ngeen koy wax pour yaay promoteur bi. <laughs> waay ñun loolu amul ci ñun pour te dire. Hmm. ki hmm. dañ ko dañ ko localiser. tellement wala kan mooy dem loolu boo ci garaaw quoi. ndeysaan ñun ay gaynde lañu quoi du du du làmb quoi. loolay wane ni kóolute am na seen biir. dañuy xuloo suñu biir sax. du mën a ñàkk parce que ku ci nekk day bëgg liggéey bi jëm ci kanam. loolu la effectivement parce que ñoom ñëpp a exigeant. Mhm. gis naa wax benn affaire ah. gis na Pape Sarr gars yi yenn saa yi dañuy wax Pape Sarr lii dafa bëri histoire na na mhm. nii ak naa. Mhm. dinay tooñ de. mais bu tooñee day nangu ne moo tooñ ko waa mhm. voilà comme li ñuy wax waxu père Gaston mu dafa ne ah tooñ naa père bi de dëgg la ci ma ne ko ah yaag père bi nag yéen a niroo dëgg moo leen di sonal rek te mhm. Sénégal booy wax dëgg nit ñu mere la am mhm. fu ñu la teg moo ñun ñëpp xam nga mooy loolu mais du looy àdduna lépp pour yi gën a sotti la rek ay ñu ñëw ci mbëri ñi nga engagé waaw ñi ma engagé ñoom ñëpp jot naa leen presque téléphone ah ñu lan ngay waxante ak ñoom ak luñ la tontu. franchement amul ku ma ci waxtu kañ démb rek Marley mu ngi may woo Marley moom la ma woo bés bu ne nañ déggante ñeenti yoon ne ko réel noonu. kóol hmm. pareil amagul koo xam ne woo na ma. ne ma wax ma ci wax bu bizarre ko dañ lay masawu nga masawul leen mooy loolu. Hmm. man kenn rek moom ma ci jaaxal ki ma ci gën a sonal Calme Ndour Hmm. mooy mbër bi nga xam ne mënu ma respecté quoi boobu lu ko neex la may wax. <laughs> ndeysaan moom moom moom dafa lakkale nag. dafa lakkale non kooku ba jik dafa lu ne la ñuy won kooku kañ sa ba léegi mu ngi jëli jàppale yi de. léegi laa ko mujjee woo mais ba léegi. dafa dem ay jàppale ba léegi mu ngi encaissé. ba léegi mu ngi encaissé moom. kooku daal waaye <laughs> kooku na gaaw bëreeg jàmm rek. Uh-huh. calme douce non. allez mais sinon mu mel ni am na leneen lu la ci gën a métti mooy jour bi nga xamante ni euh, ci la làmb ji dul am. Hmm. le matin dem nga arène nationale bi nga dugg see yow xam nga ni làmb ji du am. Hmm. en bi nga dugg see am na ñeneen ñoo xamante ni làmb bu amee liñ naan. làmb facteur de développement la ñi ciy dund dafa bari. bi nga duggee gis ñooñu. non hmm. dama yegg si. dama si ci matin bi. ma gaare ma gis meeru jaaykat yi di lal mm-hmm. ma wax ak agent sécurité bi ma ne ko ñun ñoo fi waroon tëgg tey benn maire bi gestu xool ma quoi ndax li ma wax mm-hmm. après ma ñëw ma ne leen a ah, maire làmb amul tay de ñoom ñëpp niñ ma xoolee ma gis découragement ci ñoom quoi sama yaram nag daw mm-hmm. ba ci lay waxtaan ak kenn ki mu ne ma xanaa xamoo ne ñun dañuy leb togg Mm-hmm. ñëw jaay fay mm-hmm. mooy instant yooyu ñoom lépp nañu togg nañu ñëw pour jaay làmb amul mm-hmm. loolu nag instant yooyu noonu métti na ma torop métti na ma torop mais foofu ngay xamee ne làmb li mu àndal dafa bëri nga xool ñu génn après arène bi di dem côté géejawaay ñu gis boo yu bëri ñu ngi dox sol ay surtout Marley. jëm si stade. xaw ma fu ñu doon dem ñun ñu ngi dem ñoom ñu ngi ñëw côté bi boo yu bëri ñu sol t-shirt Marley yu noir orange. Hmm. ñu ne ah mu ngi noonu de lamb li mu àndal dafa bëri bëri moo tax gars yi nañ si jéem a jàpp ko waaw bu ñu tere paa yi ak gën ñii ñëpp dese combat ñu bëri dañ leen bàyyi ñu bëri. parce que loolu mooy njariñu lamb. loolooy njëriñu lamb ñun li ñu dal dal nañu ba pare. Hmm, hmm. ministre na jéem a xool nag lu mu ci def jàppale booy mbër yi. Mhm. parce que métti na ci ñoom. téye mhm. nañu avance bi du yàgg régulariser nañu lépp nag mooy ñun tey suñu neexoon ñu ne amuñu lu ñuy wax ak mbër. Mhm. ñun CNG la ñu waxal CNG wax ak ñoom. mbër nag ñu ngi def ay sorties gis naa ci quelques sorties. Mm ñu ne ay seen contrat jeex na ak yooyu noonu. Hmm. comme yan mbër yan mbër nga gis ñu def sortie boobu. non gis naa man mbër wax na ma ko sax. Hmm. mbër sax wax na ma ko. woo na la téléphone ne la compte démb rek woo na ma di ma tooñ ne ma amatuma contrat ak yow. Ah. yow nag da ngay bëre te lu yoon wax quoi. Hmm. <laughs> boo waxee nii de dina métti ci yow de ndax di nga bëre mbaa nga bàyyi bëre. ah non moom moom xam naa. sax non daf ma doon sonal rek dafa bëgg di la yëngal di la sonal bu toogee bu toogee waaw. man lay woo commencé ma perturbé quoi moom moom sama nattu la. ndeysaan uh-huh. mais xam nga comme ni may wax rek ñun tey moom li war def nañ hmm. léegi nag ñu ngi wax euh, ministre bi mu jàpp si. Hmm. mu jàpp si par rapport ak côté mbër yi. Mhm. xam mhm. jàpp si par rapport ak côté mbër yi indemniser leen. am lu mu teg seen loxo ñun man personnellement li ma ëppal importance. Mhm. mooy ñu jël xaalis jox mbër yi. waxuma waxu rent DKR de mbër yi ñu yàq seen làmb. Euh, rent DKR mi nga xamante ni dafa jël xaalisam. def ko ci communication jàpp ko ci làmb ji. préparé ci lu bari bëree bëri. weddiwuma loolu <coughs> mais priorité bi. Hmm. priorité bi. Hmm. mbër yi la. dëgg la. ngeen ñu ngi jégalu comme. ñu ngi suñu bureau rek gars yi xam ne ñu ngi ci bureau bi. mais gars yi liggéey en même temps du mën ñàkk. Uh-huh. Euh, priorité bi. Hmm. quarante mbër yi waroon bëre jour boobu la. ñun ñu ñu doon bëreel ak ñi waroon bëri Iba dañu xool quarante mbër yooyu ñu teg dara seen loxo. après ñun ñu wax doog a wax ak ñun. Mhm. waaw mën nañu bu ñu joxee. mbëri ba pare mbëri ba pare. Mhm. après ñu wax ak ñun. mais nañu teg dara kaw loxo booy parce que booy tey nañu avance un an ak lu teg. Mhm. boo ci dolliwee lii ñëw dal leen ñu préparé woon lépp ñuy préparé mooy loolu nañ ci jàpp mais ça sert à rien ñenn ñi di génn fii parce que. ci CNG bi la ñu bokk dina ay mbër yi bu ñu toggee ak ñoom ñoo ko tey waroon hmm. nañu yëg li des lenn la ñuy fàtte ne mooy CNG contacté wul manager yi pour wax leen ko CNG benn erreur rek la def erreur de communication mais su dul loolu moom amuñu lu ñu leen di wax parce que lii bu yàqu du ñoom ñoo tax mu yàqu. Hmm. léegi euh, nañ ci jàpp ñoom nag instant yi CNG fii lañ ci mënee jàpp wax ak ministre bi pour mu jàppale quarante booy yooyu. muy suñu vingt yi ak vingt yi nekk fële. Mm-hmm. ñu jàppale leen parce que mbër bu ndaw rek li nga koy fay ak li muy dépensé bokkul. Mm-hmm. dégg nga bu Siteu li mu wax la dépensé plateau li mu wax la dépensé. Mm-hmm. moo tax parce que bu ñu naraatee bëri dinañu obligé dépensé waat. dëgg la ale jërëjëf leeral bi am na solo lool ma lay jaajëfal bu baax te disponibilité bi di la jaajëfal bu baax di la ah. masaw aussi. Ah. waaw noonu la noonu la àdduna nii la de xëy na euh, lii di ñëwee dax xëy na lii di ñëwee dax ma dañ koy sant yàlla rek hmm. xam ne euh, nii la waroon deme hmm. nii la ko yàlla tudde woon nii la waroon deme soxlawul coow soxlawul xiiroo soxlawul ngaayoo waa mondu làmb nag bu ñu bëggee làmb ji dem fi ñu bëgg nañuy woote unité seen biir hmm. xool luy feebaru làmba ñu faj ko Mm-hmm. pourtant feebaru làmb ci sama xalaat jafewul de. Mm-hmm. feebaru làmb. Mm-hmm. pour man compliqué wul de. dina wax xëy na tey loo xam ne du neexee yeneen promoteur yi de. dama koy wax ñu déglu ko bu baax man bu ma yoroon CNG. li may njëkk def mooy combat bu ndaw minimum minimum trois cent forces de l'ordre. combat bu mag minimum cinq cent forces de l'ordre ku ko mënul bumu mu tëgg. promoteur bu ndaw ak bu baax nañu su fekkee day métti question prix. na hmm. CNG ut arrangement ak force de l'ordre pour loolu di mën a nekk. jour bi ñuy commencé def loolu. Hmm. violence du amati. làmb yi dina neex sponsor yi dinañu ñëwaat man maa wax loolu tey. am na solo boo ñëwee teg civil yi ci biir stade bi. Hmm. borom te yi ci biir stade bi. artères yi di joxe ci stade bi yëpp nga teg fa ay éléments force de l'ordre. agression du am violence du am dara du am. te xoolal ñëpp dinañu normal di nga gis sponsor yi dinañ dellu si. parce que mm-hmm. làmb li mu la mën a andil beneen sport Sénégal mënu la ko andil. Mm-hmm. amul. jërëjëf Alain mm-hmm. waxtaan bi am na solo lool ñu lay jaajëfal bu baax a baax baax. di la jaajëfal tamit. di tàggu nuyoo ñi ñëpp ñu liggéeyal. di remercier tamit euh, suñu xarit ñu màggandool chimère suñu xaritu Cheikh yi Maurice Pouce mhm. Papaan gaa yëpp Assane ak Ousseynou xam nga mhm. di xam nga Massamba bu limee sax da ngay jum gaa yëpp mhm. <laughs> remercier Pape Sarr euh, Jogoy <laughs> Assane Rokhaya di gërëm suñu xarit tamit euh, Abdou Karim Fofana ministre plan Sénégal émergent hmm. di ñaanal jàmm mook njabootam hmm. di ko ñaanal mu jël point mairie point e. hmm. kooku moom moom lañ ko koy ñaanal suñu biir xol parce que suñu xarit la ñoom màggandoo te xam nañ ne liggéeykat la man da xaw ma ko non xam lu tax mënoo ko xam Sénégal dañu yomb suul ndaanaan ah fexeel ma xam ko <laughs> dinañ la yóbbu ci moom <laughs> bëgg nañ mu jël suñu mairie point. ndeysaan parce que xam na ñu ne koñ bi potentialité yi dafa bëri te koñ baa ngi dégradé. Mm-hmm. te xam nañ ne liggéeykat la la mu commencé woon liggéey biir Dakar yàqkat yi ñëw yàq ko. Mm-hmm. na ñëw rek waaye comme waa Dakar yi bëgguñu na ñëw rek defal ñu ko suñu biir koñ te xam nañ ne ñoo daxale koñ ci àdduna. ndeysaan loolu rek la ñu bëgg te ñu fas yéene ko jàppale pour mu gañaa. Mm-hmm. waaw. incha allah jàppale ko ba mu gañee mairie bi. dinañu jaral lu nekk nag. Hmm. dañ ko jaayante campagne yu neex ak lépp. muy ku baax dinañ la yóbbu ci moom nga xam ko. incha allah amul lan moo garaaw. Hmm. politique Sénégal nit ñu dañ sonn ci paa yeeg grand yi quoi. effectivement nañu wax ak jeunes yi kooku booy comme ñun xam nga ak jeunes yi suñu frère la wax ak jeunes yi jeunes defar. Sénégal man jeunes yi laa àndal vraiment. Hmm. gis nga tey ñun ni waa Randekat ñëw nañu fii suñu entreprise ak fii. Macky Sall lan la wax priorité aux jeunes nañu liggéeyloo jeunes yi. Hmm. nit ñi di liggéey liggéeyloo jeunes yi nekk ci làmb bi dugal fa seen xaalis ñeneen ñii di ñëw di yàq di tere mu am. Hmm. ñooñu xam nga ne liggéeyaluñu Macky Sall. ñoo ñu dañu nekk di def luy tax jeune yi contre Macky Sall. Hmm. te Macky waxu leen loolu te moo leen di fay moo leen fi teg loolu dafa am solo. tey nag ñun politique ñu suñu yoon nekkul ci politique mairie pour nga dañ ci politique kooku moo ñu intéressé. tey Macky la fi yàlla teg ba mandaam di jeex nit ñi nañ ko jàppale pour dëkk bi avancer loolu moom solo dëgg la voilà di nuyu waa live waa live bi xam nañ seen bopp mm-hmm. tullu tumaani gars ko quoi mm-hmm. Serigne Diour tout le monde xam nañ seen bopp boo limee rek fàtte si kenn mu mere la ñoom rappeur écologiste ak yooyu noonu xam nga mm-hmm. di di leen sant tamit parce que ñoom amoon na journée diaspora ci biir ñoom jàpp nañ si xam nga àndil nañ ñu sax sponsor parce que ñoom ñoo àndi tap tap seen. Hmm. te tey boo xoolee tap tap pare na pour dugg ci làmb ji. Hmm. te loolu am na solo Toldo moo ak euh, Toldo ak Thiandoum Ndoye ñoo ko liggéey. Hmm. xam nga léegi nag euh, yooyu yëpp dafa am solo parce que gis nga genre gars yooyu ñu ngi dund làmb. bay wut ay sponsor Europe pour andi ko dugal ko ci làmb bi te nit ñi yooyu war nañ ci bàyyi xel. nag affaire yi buy faral di demee nii gars yi dañu demi tour de. loolu loolu la ba yàlla bu baax de hmm. yàlla bu baax de di la remercier nag bu baax. xam nga hmm. déplacé wu nga ñëw nga ba suñu bureau xam nga. Hmm. nice na quoi yow da ngay dundal làmb. ndeysaan yow yaa baax leen ci li di def. xam nga pardon. te di ngeen am jàmm de. ñun joobandoo affaire bi làmb bi dina nice. parce que ñun li ñu gën a mooy lii bu ko tojoon pare woon ci biir rek ngi doon bëgg a commencé beneen pour décembre. ndeysaan. xamoon nga dañu bàyyi gars yi tëgg seen làmb yi. Mm-hmm. après ñu ñëw wax ak ñun rek dañu jox booy yi li ñu war a jox. Mm-hmm. comme ça booy yi am ci lu ñu téye parce que métti na ci ñoom ko mm-hmm. voilà jërëjëf jaajëf jërëjëf mbokk yi dégg ngeen ki nga xamante ne mooy Alain wax ju rafet ju am solo bi nga xamante ne wax na ko may masawu rek quarante lutteurs yi nga xamante ne tey. préparé wu ngeen ba war a génn sa kër dem làmb ja ñu woole na la làmb ji du mujjee am na am préparation wu làmb rek dafa metti rawatina nga ñëw ba ca bis ba ñu ne la làmb ji ngay préparé mujjul la am te ku xam làmb xam ne ñaanlu ku xam làmb xam ne regroupement ku xam làmb xam sarax yi nga xamante ni danga koy génnee avant làmb ji ñu leen di ñoom ñëpp di masawu tamit suñu confrère bi nga xamante ni mooy Modou Anta Modou Anta